ci yéenekaay yi ak Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xeendoo tey élection présidentielle yi ñuy waajal yéenekaay bi di Walf Quotidien mangoog processus électoral bi eh, kenn mënatu ko càmbar c'est fini eh, faw ñu dem élection yéenekaay bi conseil constitutionnel mujjee sowe Sénégal eh, mi ne ci jeexi jaaxa njiitu réew Macky Sall mujjee datu élection yi ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeru mars 2024 ca la ñu amal tànneefu njiitu réew gouvernement bi jël na dogal tas ko bokk na ci maître Sidiki moo fa wutu Amadou Ba euh, mi doonatul premier euh, ministre loi d'amnistie ba mujjee na jàll démb ci assemblée nationale Pastef ne déet wote wuñ ko euh, Walf Quotidien noonee la xëyee tey ci xëtam bu njëkk Sud Quotidien di ñu dégtal élection présidentielle yooyu les conseil constitutionnel moom mujjee na faxas bépp dogal gu tukkee woon ci dialogue national ba woon jàpp ne élection présidentielle yi fanweeri fan ak ban ci weeru mars lañ ko war a amal juróom-ñaari sage yooyu le mujjee nañu sax tënku ci dogalu njiit réew Macky Sall mi xam le fan ak ñeent ci Ah, ci la candidat yi fas yéene dagan baatu askan wi maanaam am nañu ñaar fukki fan ak benn yoo xamante ne eh, daañu jege askanu euh, Sénégal yéen a kaabi yor yor gi xëy duñu degtal ne élection yooyu le eh, la ca tukkee ca jam ñaajo te dundoon yaakaar ca ña fa doon dialogue daanaka eh, conseil constitutionnel mujjee na ko du mooyu yéen a kaabi lu euh, dis gànne ci ndodd du réew mi euh, Macky Sall élection yaa ngoog waaye ñaari data taxaw ci jamono ji bu 24 mars doon tànneefu njiitu réew Macky Sall amal fanweeri fan ak benn ci weeru mars doon tànneefu conseil constitutionnel ana bañ lañ cay jël yéen a yor-yor gi moom la bëgg a xam di ñu xam leeg Amadou Ba jot nañ ko daanaka euh, jële ca euh, gouvernement bi doonatul premier ministre Karim moom mënatul bokk ci élection tànneefu njiitu réew spolié yi ñoom daanaka euh, kenn mënatu leen ca boole mu ngi ci yéen a kaabiri yor-yor gi l'évidence li ñu dégtal njeextalu nguurug Macky Sall ne na mu jeexee doy na waar lool république gàngoog daanaka gësëm nañ ko ci jamono ji Euh, conseil constitutionnel euh, gantal dogalub euh, dialogue national bi fi woon ba tax na njiitu réew Macky Sall xam le ne élection présidentielle yi nañ ko amal ñaar fukki fan ñeent ci weeru mars gi ñu ne njiitu réew mi yemu ca tas na gouvernement ba jël kilifteef ba teg ko ci teg ko ci loxoy maître sidi Kaba di premier ministre yéen kabi di réew mi quotidien processus électoral beek élection présidentielle yi daanaka caaxaan faaxe récréation ba jeex na juróom-ñaari saa yene ca conseil constitutionnel ñoo dakkal li ni mel xam le ne nañu amal élection présidentielle fanweeri fan ak benn ci weeru mars gi ñu jëm waaye nag juróom fukki candidat ak juróom ñoo cay dagaan baatu askan wi yem ak njiitu réew Macky Sall tànn datu élection di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars euh, de jot naa sax faxas gouvernement gi fi newoon yéen a kii bi di l'info ne njiitu réew mi Macky Sall mujjee na deltu ginnaaw gannaaw pression gatu tukkee ci juróom-ñaari saa yene ca conseil constitutionnel jëm ci euh, datu élection yeeg njeextalu mandam njiitu njiitu réew Macky Sall nguuram day jeex ñaari fan ci weeru avril yenn kabi di le quotidien di ñu dégtal ne élection yooyu le ak juróom-ñaari sage yañu nañu bloqué njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci jëfewuñu benn yoon dogal yettukee ca dialogue national ba njiitu réew Macky Sall mujjee xamle ne élection yi le nañ ko amal ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeru mars maître Sidiki Kaba moo wutu Amadou Ba ca primature yéen kabi di las ne dogal gàngoog élection présidentielle yi ku yaboo ñeent ci weeru mars wala boog fanweeri fan ak euh, benn ci weeru euh, mars doon dogal yi nga xamante moo tukkee ci njiitu réew Macky Sall ak conseil constitutionnel Le Soleil mu ngi ñu koy dégtal àllarba xamante ne ay dogal yu bare bare tukkee na ca dogal ba ca jiitu bokk na ci datu élection yi conseil constitutionnel moom euh, xam le ne du ànd benn yoon ci dialogue national bi nga xamante ne jotoon na tënk ay dogalam njiitu réew Macky Sall tànneef ga mu def ñaar fukk fan ak ñeent ci weeru mars la gis la ñu war a amal tànneefu xool ka koy wutu ci boppu réew mi Amadou Ba moom euh, am na ku ko wutu ca primature maître Sidiki Kaba lay wuyoo projet de loi si ba mujjee na jàll ca assemblée nationale yéen a bi di la mandaane waxtaanee nañ ko ca conseil constitutionnel mbirum datu élection yi bokk na ci élection présidentielle yooyu le daanaka euh, sës na ci jamono fan fanweeri fan ak benn ci weeru mars lañ ko jàpp élection yooyu le ak njiitu réew Macky Sall mi fixé datam ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars la gis ne euh, ca la ñu war a amal tànneefu njiitu réew yéen a bi di 24 heures ne conseil constitutionnel wax na ay dëggam ci jiixi jaaxa gi Sénégal di dund ba léegi libération yéen cabinet bi ci jamono joo xamante ne assemblée euh, projet de loi d'amnistie ba mu yéen a jàll euh, lu ëpp juróom-ñeent fukki député ñoo ko daganal ay dafee jàpp ne euh, ñi nga xamante ne mooy député opposition bi waa PASTEF jotuñu ànd ci googule projet de loi Mouhamed Sagna di Guy Marius Sagna jàpp ne bile projet de loi goo xamante ne jot nañ ko wote démb njiitu réew Macky Sall lam ca jublu mooy ay ñooñam yi nga xamante ne laale ci ay ñaawte fi mi yéen a bi di turbine ne ma ngoog juróom-ñetti fukki bakkan ak juróom-benn ñoo ca rot diggante 2021 jàpp 2024 lépp nag euh, niil na ci jamono ji lépp la ñu jël euh, gasul yéen a bi projet de loi ba mujjee jàll di projet de loi d'amnistie foofee ca assemblée nationale yéen a bi di Dakar Times mu ngi ñuy dektal njiitu réew Macky Sall mi taxalikook Amadou Ba doonatul euh, premier ministre waaye nag mu ngi wéy di doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba jaajëfal njiitu Sall ne ci ndombal tànk yam ko jox ak i tamit euh, euh, sañ-sañ bam ko jox ba mu liggéey lu yaatu ci réew mi euh, tey ji la ko dese mooy dem ni baatu askan wi ngir mun a doon juróomeelu président yéen kaabi di critique mu ngi ñuy dektal li nga xamante ne moo xew démb ci assemblée national ak la fa tukkee ci googule projet de loi yéen kaabi di suñu làmb nag ci 8 mars bi xëy na di ci delloo njukkal jigéen ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu làmb ji di ci béy seen waar saay su ne cosaan ak aada réew mi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 Mohammed Day in America ñu ciy woo mbooleem jullit yi